professeur ginnaw tay bi nga xamni ni déglu nga communication ministère de la santé euh, lan mo nek tay sa première cadeau wa ma leen di gërëm ci invitation bi euh, bis mu effectivement dinañu gis euh, ñu wane chiffres yi wax ni nga xamni ni ñoo feebar wax ni nga xamni ni testé nañ positif wax ñi nga xamni wér nañu. fan yi passé nag comme li ngeen ko gisee li war gën tiital nit ñi mooy li ñu tuddee cas communautaire yaakaar naa autorités yi jot nañ ci wax mais <coughs> gëm naa ni war nañu gën insister ci ci loolu plus que li ñuy ci euh, ñi ñi wér parce que ñi wér moom xëy nañ feebar bi boo wàññee téeméeri nit yu ko am juróom-ñaar fukk yi mën nañu wér sans faj leen donc euh, taux de guérison pense que par contre <coughs> liñ ñu tuddee cas communautaire xam ni kenn xamam ku ko wàll xëy ci lool la ñu gën a waaye xamuñu it moom kan la wàll balaa ñu koy jot donc peut être am na ñoo xam ne ñu ngi yor doom jàngoro bi di wër ci mbedd mi wala en tout cas di dox seen soxla yor ko mën ko wàll ay nit te xamaguñ kan lañ ko wàll ñoom ñi ñoom ñi ñi ñi communautaire yi wàll loolu vraiment mooy mooy leçon yi ñu war gën a tirer ci ci communication si kon daal su ma la déggee mooy euh, tey li nga xam ni ñu ngi koy xëy na di ndamoo Sénégal ba ñu ñu bëri sax di wax euh, exception sénégalaise yow daal boo sañoon dañuy gën a euh, góorgóorlu ci circonscrire li nga xam mooy cas communautaire au lieu ñuy gaaw di bàkku di ndamoo loo xam ni xëy na sax ñu bëri ñu ngi wax ni jarul ndamoo ndax li nga xam ni mooy configuration suñu population moo tax tey peut-être ñuy am nombre de guéris yu bëri yi peut-être bon être aussi ak xëy na protocole yi nga xam ne ñu ngi koy jël xam nga xam nga ndamoo moom bu amee ko def daf fekk ni ñàkk xam la wala ñàkk jom maa ngi jéego ci ci kàddu boobu mhm. parce que comme ni ma wax léegi koo xam ni bu def ak ñàkk ko def soixante dix pour cent dinañu wér ensuite bu ñuy seet ni ñuy testé pour man bariwuñu mhm. ndax test yi ciblage lañu def dañ seet ñi nga xam ne dañu ay cas lañu ak ñi ñi ñi tuddee les contacts yi cest à ñu jot euh, giseel wala ñu toogal ñoom la ñuy testé xam nga loolu c'est très ciblé mm-hmm. or yu mel nii li gënoon mooy ci njëlbeen en tout ay moyens ba mën tester le plus largement possible dégg naa sax ñu ni benn kilifa nii élargir nañu léegi dinañ dem ci kër docteur yi ay nit yi fekk ñu ñëw pour leneen ñu ñu jël fa un certain nombre bon loolu aussi problème parce que dañu wax nit ñi bu yëg ay ay signes yoo xam ne dafa nuroog jàngoro bi toogal sa kër bul dem hôpital donc xam nga ñooñ di leen fekk fa ñuy fa ñuy leen di jël dañ leen fekk hôpital par ailleurs ñu ni am na ay porteurs sains cest dire ñoo xam ni duñu yor doomu jàngoro bi te duñu yegg dara seen yaram ñooñu it kenn du leen fekk hôpital donc boo demee hôpital ni da ngay jël ñoo xam ni euh, seen biir mooy metti wala seen tànk mooy metti man bu ñu amee zéro positif sax du ma bett mhm. donc war nañu xoolaat tuuti stratégie bi ci côté boobu moy moy li nga li ñuy doon wax xeyna fani yeb te moy mhm. euh, li nga xamni moy euh, dépistage de masse ñu gis ni mhm. def na def na ay preuve ci dekk yu bari mhm. mais Sénégal aussi dafa melni ba légui rek bëggul def jéego jëm ci côté bobu est-ce que lolu ñakum kay la wala aussi euh, politique la bo xamni état bi daf ko tek rek parce que dafa melni pour mom mom maîtriser na fajj bi nga xamni wala xex bi nga xamni mu ngi koy xex jangoro bi fi ci Sénégal waaw ah, mën next nekk stratégie parce que réew mu ne quand même da ngay def stratégie te stratégie bu ne am nga ay avantages ak ay inconvénients mhm. mais xam naa ne aussi euh, ñàkk jumtukaay ci la parce que bu ñu gisee institut pasteur di yëkkati ay ay nit ak ay matériel di ko yóbbu ci yenn région yi di ko di fa def ay test ça veut dire que li ñu waroon am yëpp ci région yi amuñu ko par rapport au laboratoire kii parce que am nañu chance suñu réew structure boo dem di ko fekk laboratoire problème bi mooy euh, jox ñu laboratoire gëdd bi mu waroon am moo tax euh, équipement yi ko am yëpp am ko personnel bu ko am yëpp am donc si yaakaar naa bu ñu jógee fii war nañ jël matukaay yoo xam ni euh, yi yàgg bataaye pour pour soqali laboratoire yi continuer ko ba mu jëm professeur ñu ngi lay nuyu. Euh, tey euh, démb dégg nañ du moins donc le chef de l'État donc euh, muy wax ci ci ci jàngoro bi gestion bi nga xam ne def nañ ko fii ci réew mi. Euh, tey euh, mu saluer bu baax a baax effort yi nga xam ne ñu ngi ko nekk di def waaye dafa mel ni euh, doyul doyul ah, parce que ba léegi jàngoro bi mu ngi mu ngi sévir ndax quoi cas communautaire yi mu ngi yokku waaye ci gis-gisam pour l'instant jaragul ñu jëm ci wàllu confinement waaye bu situation bi xawee dëgërandi rek mel na ni dinañ ci jëm tey li mu yaakaar mooy couvre-feu xoolaat heure bi ah donc def ko nu mu gën a teele waaye gën aussi yokku yokku le timing ni mu gën a euh, naaje euh, ci bëccëg 7 heures du matin est-ce que jàpp nga ne ak ak ak stratégie boobu mun nañ arriver à à à contenir donc les cas communautaires. waaw man d'accord nag président ci ni confinement jarul ñu ci teel a dem waxee confinement ma confinement général bu dégg bëccëg. Mhm. Euh, parce que confinement général dafa am lu mu laaj. bu fekkoon ni li mu laaj mën nañ ko xëy na sax moo doon idéal mhm. te li muy laaj mooy d'abord nga mën assurer ni boo kenn du génn kenn du génn mhm. parce que pays yi ko réussir dañu am pouvoir yu fort yoo xam ni bañ ne kenn du génn dañ jël ay moyens ba kenn du génn ñu ñu dul ñu am autorisation wala walla wala ñi xam ni yéen seen liggéey war na leen may génn loolu mooy benn. ñaar boo defee confinement il faut quand même nga assuré nit ñi lu ñu lekk parce que mënoo toog sa kër rek doo génn wuti loo lekk euh, ñi réussir gis nañ ni yenn réew yi dañ doon indil nit ñi ay denrées chaque semaine wala chaque deux jours ñu indil leen denrées ba seen kër kenn ku ne te loolu xaw ma ndax mën nañ ko woon mën ñu bëgg naan sax mën ñu ñett il faut ñu xàmmee ñan ñoo yor doomu jàngoro bi ak ñu ko yor te loolu day ñu delloowaat ci test yi ma doon wax <coughs> tant que test woo population bi ëpp ci nit ñi mënoo xam ku yor doomu jàngoro bi ak ku ko yor te boo confiné ku ko yor ak ku ko yorul te xamu ko dañuy wàllante donc confinement bi <coughs> loolu loolu loolu mooy condition yi nga xam ni rax ci dolli boo nee nañ confiné am na ñuy génn même bu dee seen liggéey moo leen ko may il faut nga obligé ni ñu sol masque kenn bañ waal sama xam ci biti donc tey professeur en tant que ah. yow tey lan nga jàpp ne euh, mun nañ ko indi yokk ko ci xeex bi ngir gën a euh, ñoŋal bataay bi waaw man jàpp naa ni peut-être balaa ma yegg foofu sax euh, proposition président def na ci élargir couvre-feu bi damay rek mu nekk euh, dépassé problème bu ñu seetloo xam nga am na ay réew yu ñu jiitu ci mbir mi pour ñu jàng ci ñoom yu baax ak yu bon yi ak erreur yu ñu def pour ñun ñu bañ def erreur yi boo seetloo France dañuy tere nit ñi ñu def sport à Paris diggante dix heures ba dix neuf heures mais jur après dix-neuf heures ñëpp a ngi ci mbedd mi ñu ëpp daan gis ci yeneen heure yi ba léegi ñu ngi xool nan ñuy teggiwaate mesure boobu donc dama ragal <clears throat> bu ñu élargir euh, couvre-feu bi heure yi ñuy bàyyi nit ñi nit ñi gën a bare ci mbedd mi man li ma foog ni moom la ñu waroon def mooy fexe ba régulariser wala réglementer génn yi fexe vraiment ba nit ñi Mhm. kuy génn moom mu doon farata benn ñaar ñu réglementé fi nit ñuy def maanaam marché yi surtout boo seetloo ma suñ marché yi marché bu ne am nga fukki bunt ak juróom-ñaar est-ce que mënuñu woon pro euh, profité ci occasion bi clôturer marché yi mu am benn wala ñaar wala ñetti bunt yoo xam ne dañ koy réglementé ku fay dugg ñu xam kuy génn ñu xam ñetteel bi. pour man jot nañu exiger sol masque <coughs> ñuy wax euh, dañuy recommander ñu sol masque mais bu recommandation obligation la war doon léegi parce que masque bi quel que soit le masque même bu dee tissu bu ko ñëpp solee ku ne di nga aar sa morom donc bu ñu réglementé nit ñi ñu bañ a génn ñu xool ci transport bi est-ce que dañuy bàyyi rek ñu continuer nit ñi di dugg ci kaar yi nu mu la neexee buñ ko réglementé woon ba pare ne ku ne na sol masque yaakaar naa confinement bu ko jaragum <clears throat> yokk fër si xëy na mën na ko bañ. mais professeur euh, euh, yaa ngi wax léegi li nga xam mooy euh, obligation bi nga war nañ ko def ci masque yi. Mhm. loolu yëpp jëm ci bañ li nga xam ne moom mooy propagation bi gën a tar au Sénégal. mais tey est-ce que yow mi nga xam ni spécialiste nga xam wàllum euh, mhm. microbiologie ak li nga xam ne moom mooy euh, virologie est-ce que tey suñu réew yi ci ni feebar bi di doxee ni malgré kaa euh, communautaire yi ni muy wulee ñaay nii est-ce que yaakaar nga ni tey suñu réew yi mën nañ dem ba tollook tolloog dëkki tubaab yi wala dëkki tugal yi ni leen fa feebar bi sonalee ndax mën nañu dem tey ba feebar bi sonalee noonu Afrique comme ñoom ni ñu koy waxee. waaw ah, xam nga feebar bi ku si ku si wax lu bari rek bu ma ñemee dama naan da ñeme yàlla ndax li ñu xamul ci feebar bi ëpp li ñu ci xam donc li ñu mën def rek mooy def ay constat maanaam ay seetlu te li ñu seetlu effectivement mooy mooy mooy dëkku Afrique yi ni leen feebar bi songee wuute na ak nu mu songee waa Europe ak Amérique donc loolu seetlu la liñ ci mën teg mooy ay hypothèse maanaam ay foog naa foog nañu daal lii la am nañu foog ni dëkku Afrique yi tax sonalu leen parce que ñoom ñëpp dañu def ay vaccination BCG dégg ngeen coow lu mu jur fan mhm. looloo tax foog boobu ñu ko foog moo tax ñu ñu def ay test ci ci BCG pour xool ndax dëgg la wala dëgg am nañu foog ni chloroquine bi ñu daan jël yàgg ko jël aussi barrage la euh, ci ci ci feebar mais yooyu yëpp ay hypothèse la rek hypothèse nag dañ koy vérifier donc il faut ñu am recul bu mag a mag a mag analyser yi vérifier hypothèse yi avant ñu mën am ay certitude donc vraiment tey jii moom kuy wax da ngay wax loo xalaat mais mënoo am certitude bu wóor parce que bis mu ñu am lu bees mu génn ci feebar. waaw toujours euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, production yooyu en Afrique ñu koy wax souvent dañuy wax ni Afrique amul moyen amul euh, amul masque amul ay traitement et pourtant gis nañ ay dëkk yoo xam ni yu mel ni tey Burkina Faso ñu ngi def ay essais cliniques mm-hmm. malheureusement nag au Sénégal peut-être ñun ñoo ko yëgul yow ngay liggéey ci eske woowu est ce que euh, yëg nga fu ñu defee fi mu nekk ni mooy recherche ci wàllum peut être euh, li nga xam ne moom mooy virus bi wala aussi euh, ubbi wala lancer ay essai clinique pour xam pour dëgëral yow li nga doon wax ni est ce que chloroquine bi buñ ko utiliser est ce que si benn proportion bu mag est ce que am na njëriñ yaakaar nga ni Sénégal mu ngi liggéey ci loolu wala dafa def effort am yëpp rek daf ko def ci faj mbir mi faj mbir mi léegi léegi. waaw ci li ma yëg moom am na ay ay ay études yu ñuy def mais pour man doyul euh, yëg naa ni institut Pasteur Dakar par exemple ñu liggéey ci benn vaccin mm-hmm. ñu liggéey itam ci ay test yëg naa ni itam am na yeneen initiative mais def mel ni initiative dab dabal cest xaar ba comme Sénégal ñu faral di def dernier moment xaar ba yëf yi ni këpp ni joor na ñu euh, soog a jóg te duñ def ay anticipation suñu réew malheureusement dafa am domaine yoo xam ni jox ñu leen trop gëdd recherche ci la bokk mm-hmm. recherche dafa doon domaine boo xam ni day lu ñuy tuddee domaine transversal maanaam foo dem fekk ko boo demee ci santé comme moom la ñuy wax nii fi ko fekk am na recherche yu ñu soxla boo demee ci enseignement njàngale mi am na recherche yu ñu soxla boo demee ci agriculture boo demee ci pêche boo demee ci yu bare fi ko fekk recherche lu ñu war jox kulla la loolu tax pour man recherche dañ ko waroon yëkkati sax yéege ci premier ministre nga xam ne bu ñu soxlaa dara premier ministre mën na coordonné euh, wala ak président comme premier ministre amatul temps yi ñoom ñëpp mu man mobiliser tous les ministres concernés mais bu ñu ko bàyyi ci benn ministère non seulement ministère boobu day am tendance di def lu dul li concerne ministère bi mais itam xëy na du mën mobiliser yeneen ministres comme comme ni donc boo demoon aussi léegi ci université xam nga universitaires yi ñu fay jàngale ñu leen tuddee enseignants chercheurs donc ku si ne non seulement war nga jàngale mais war nga def recherche boo demoon tey ci université di nga gis ne ñu néew ñoo am possibilité wala moyen def seen recherche yi nu mu war donc daal pour tontu seen laaj am na effectivement ay ay ay recherche yu ñu ci ci réew mi mais pour man recherche yu yu ñu mën a yàgg yàgg yaa ngi wax léegi exemple yenn réew yi comme Mali Burkina ñooñu mhm. eh, dafa am fu ñu rawee mhm. man deux mille douze avant élection yi defoon naa benn proposition ma ni Sénégal war nañu de teg benn institut bi ñu tuddee institut national de la pharmacopée mhm. xam ne institut boobu liggéeyam bu mu war jëkk def mooy def répertoire plante médicinale maanaam lépp li nga xam ne gàncax la foog nañ mën na faj buñ si lëkkaloo ak ñu tuddee tradipraticien mën nañu am list bi recensé leen xam fan lañ ne xam lan lañu foog ne moom lañu faj xam itam naka la mel foto ko sax si la def répertoire buñ jógee si loolu institut boobu xam nga université am na si ñoo xam ni botanique lañu jàng moom lañu jàngale aussi maanaam mbirum mbirum gàncax am na si ñoo xam ne affaire toxicologie lañu jàngale donc bu ñu regroupé woon spécialité yooyu ci institut boobu ñoom dinañ mën garab bu ne dinañ jël temps mais mën nañ si yegg garab bu ne ñu xam lan lay faj ban dose moo mooy mooy faj ban dose moo toxique ba xam dina servir de matière première pour éventuellement une industrie pharmaceutique malheureusement loolu kenn dégg ko fenn loolu lañ ñooñu rawal malik burkina dañu am ñoom seen répertoire de plante médicinale bi affaire bi jógee ñu xëy na gis nañu garab yoo xam ne kon nañ ni mën nañ ko faj moo tax ñu anticiper rapidement ci ay test ak ay essais pour après bu ñu amee résultat ñu génn. dëgg waaw pour euh, des foofu rek. Mhm. Euh, ni nga ko waxee euh, xëy na war nañu def ay jéego jëm ci wàllum recherche ak li nga xam ne moom mooy topp feebar yi ngir xam aussi ñun aussi am suñu argument yu ñu mën a apporter. Mhm. mais bu ñu gisee aussi li nga xam ne moom mooy bu ñu defee comparaison entre tey li Sénégal def comme jéego bu ñu jëlee Sénégal. Euh, mu ngi woon treizième pays africain bi gën a touché tey mu ngi ci quatorzième gine Guinée roppi na ko hmm. kon peut-être ñu ngi def jéego tey yaakaaroon ni Sénégal aussi am na taxawaay boo xam ni war na ko taxaw ci dëndub Afrique bi maanaam li li soxal Afrique de l'Ouest xëy na pour li nga xam ni mooy recette bi nga xam ni marché na au Sénégal parce que am na ñu koy wax pour pourquoi hmm. pas aussi ñu jokkalante jëfalante ba nga xam ni euh, du ñu soxlaati jëggaani dara ci wàllum réewi yi wax dëgg yàlla man man classement <clears throat> yan classement yi moom dana ci ne féew mm-hmm. parce classement boo xam ni mën na changé du jour au lendemain <coughs> waaw euh, jarul ñu si taxaw lu yàgg mm-hmm. ñaareel ba effectivement expérience moom dañ ko war toujours di partager ci ak suñu mbokk yi suñu xarit yi nga xam ni dëkkandoo donc euh, <clears throat> war nañu mën di échanger naan sax loolu xëy na am na ndax ma saa dégg benn responsable wax ni ñoom ñuy jokkalante ak yeneen a yi pour échanger ci expérience <coughs> loolu war am la mais man li ma gën a loon mooy ñu tirer leçon ci ci ci lii am na benn plateau bu ma demoon man leen leçon bi bi ñu war dëkk tirer moo di tey jii ku ku médecin bindaloon ni la da nga war évacuer sax <coughs> doo parce que xaw ma foo jëm ku ne li la yi nga waroon jëm ñoom la leen yor doy na leen. donc fexe ba ñu am plateau technique bu relevé boo xam ni dootuñu soxla évacuation. Mhm. loolu ci leçon yi war gën ci relevé. pourquoi <clears throat> parce que yenn ci réew yi ñu yóbbu suñu maladie fi la seen médecin yi su bëri fii lañu jàng donc xam-xam bi mu xarala bi mi ngi ci li mooy plateau technique te loolu vraiment dafa yàgg ci réew mi négligé euh, côté côté wérgu yaram parce que comme ni ko nit ñi waxee xëy na ni ko waroon def bu ñu feebaree fanaan la ñu fay ñaareel bi mooy mbirum laboratoire tey jii ñi ñuy wax xam nga feebar bi sax moom moom moom dafa dafa illustratif mm. feebar boo xam ni nit mën na doom jàngoro bi te kenn kenn du ko xam ci moom ndax amul benn signe amul loolu bu laboratoire taxawul def test mhm. kenn xam ni feebar baa te loolu dafa bare ci ci ci ci feebar yi yeneen feebar yi am nañu ay signe mais signe dañu nuroog yeneen feebar fekk laboratoire rek moo mën tranché ni lii mooy euh, li li feebar bi lii lii la donc vraiment war nañ jox gëdd suñu laboratoire yi comme ni mu ko waxee rek ñu ngi fu ne mais li ñu war am amuñu ko ba tax na mu xaw jafe. vraiment leçon yooyu professeur pour bañ la gën a téye ci mhm. ligne bi rek euh, mhm. pour xëy na jeexal euh, boo doon def tey benn analyse boo xam ni dafay jëm ci wàllum gestion bi nga xam ni tey Euh, Sénégal mu koy euh, gérer li mooy euh, maladie bi mhm. yow lan moo ci nekk les points positifs ak li nga xam mooy le nekk les points négatifs waa xam nga nit aussi dafa di maam man comme neewuma ca comité ba dina jafe ma wax dans le détail yenn yenn kii yenn analyse mais def nañu ay constat comme ñëpp constat bi ñu def mooy euh, xëy na waxuñu tey ci affaire chloroquine mais suñu médecin yi ñoom adopté teel nañu chloroquine di ko jox euh, maladie te loolu man dama si ànd ak ñoom ndax man génnoon naa ca jëlbeen wax ni <clears throat> di expliquer processus bi professeur Raoul def ba ba wax ni moom tàmbali chloroquine man am naa ci donc loolu am solo parce que wax nañ ni malade yi nga xam ne dañ leen jox chloroquine ñoo gën a gaaw a donc loolu le fait d'adopter ça c'est c'est un bon point euh, mais problème yi ma yi ma yi ma gis ne war nañ ko améliorer mooy test yi vraiment test yi war nañ ko yaatal euh, wax nañ ni am nañu xaalis bu xaw takku tuuti dañ investir ci laboratoire yi ak ci test mën def test yi partout dans le pays le plus largement possible ñaareel bi mooy mooy gën a insister ci génn beeg dugg bi nit ñu wàññi vraiment euh, man gis naa ci yenn ak port de masque gis yenn réew yoo xam ni policiers yi sax ñoo distribuer masque donc dañ investir largement sur les masques rendre ko obligatoire ba nit ñi di ko di ko takk bu ñuy génn te waa ni dugg bee génn stratégie nag du du toog benn place day évoluer en fonction de situation bi ñu am moo tax dina jafe ñu wax ni lii rek la ñu war def donc en tout pour man yooyu war nañ ko améliorer après ci kanam tuuti ñu ko xam ban décision yi.